بصرف المسيات كيما تقود سمام للرسيات أدل إذا ازداد قلبي أذن بهجتها ووجهت لي هدايا بالمبرات أمست تطيب نفسي كي أميل لها وولت ميل قلبي للهديات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 nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy yóbbu Medina bàyyi jox ko Cheikh Ibrahima Cheikh Mahi Ibrahima Niass waaye moom la ñuy yóbbu it euh, Léona Niassène jox ko Baye Cheikh Tidiane Niass waaye nuyoo boobu it moom la ñuy yóbbu Thiénaba moom la ñuy yóbbu Ndiassane moom la ñuy yóbbu euh, euh, moom la ñuy yóbbu Ndiassane moom la ñuy yóbbu kër Maam Cheikh Omar Foutiyu ci Baye Thierno Bachir taal di ko ñaan yàlla yàggal ko yàlla sàmm ko moom lañuy yóbbu ci mboolem këru diine yëpp bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ kenn te bàyyiwuñ ñenn it ñoo ngi leen di nuyu fi ñu leen baaxoo nuyoo ci seen télé Rewmi TV ngeen baaxoo ko am seen émission keppaaru mag ñi dimanche bu jot 22h jàpp minuit baaxoo ko ànd ak seen bokk Serigne Bara Mbacké ngeen di topp télé bi ci canal 40 numéro 40 waaye man ko taataan it ci réew Rewmi FM 97.5 ci benn waxtu bi nga xam ne moom lañ koy teg muy 22h. Euh, seen émission keppaaru mag ñi xam ngeen ni niñ ko baaxoo defee saa yu ñu fi teewee incha allahu taala dana ñaanal kilifa gi nga xam ne buñ mënee jottali suñuy kàddu bañ mën koo dégg mën koo jëriñoo ci yàlla moom la ko yàlla jaarale alxaaji Mbagnick Diop di ko ñaanal suñu borom sàmm ko suñu borom aar ko waaye suñu borom mottali mboolem ay naalam di ko jaarale ci jëwriñ ji nga xam ne moo jiite la gi alxaaji Mouhamadul Moustapha waaye noonu lañ koy jaaralee ci suñu technicien yi nga xam ne waxtu ci nekk ñoom ñooy jàppandal xarala gi bañ mën a jottali ko suñuy kàddu mën koo jëriñoo siisi ak alaaji Malik ak euh, mbokk yi ñuy àndal liggéey bi ñoom ñëpp rek bàyyiwuñ kenn xam ngeen ne seen émission keppaaru mag ñi niñ ko baaxoo defee saa yu ñu fi teewee suñu mag ñi nga xam ne ñoom la ñu yàlla booleel nga xam ne li yàlla yónni woon yónent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom ci ñoom la ko yàlla jaarale ba mu agsi ci ñun ñun dañoo judd rek doon ay jullit lan moo waral loolu mooy saxaaba yee bay seen waar suñuy maamaat bay seeni waar jot suñuy maam jot ci bay seeni waar ba suñuy baay jot ci bay seeni waar bay seeni waar looloo tax ñu ñu judd juddoo ci lislaam waaye ñu yar ñu ci jéem a dundal lislaam ji suñu mag ñooñu nga xam ne nag ñooñu defal loolu nga xam ne mënuluñ ko suñu bopp yàlla jaarale ko ci ñoom suñu mission keppaaruk mag ñi mag ñooñu la ñuy fàttaliku ci seeni jaar-jaar waaye seeni mbind waaye seeni waxtaan yu am solo yoo xamante ne daal seeni dénkaan yu am solo yoo xam daan nañ ko defee ci turuq suuf yi yépp nag bàyyiwuñ fedd tey nag ñu dellu siwaat ci suñu kër muy yoonu murit waaye kenn ci njabootu Cheikhul Khadim kenn ci ko ci njaboot gi nga xamante ni njabooti Cheikhul Khadim yi déreet lañ waaye njabooti Cheikhul Khadim yi xol lañ muy kan Cheikh Mouhamadul Amin Baara Khourédia ngir lan bis boo xamante ni moom lañ ko baaxoo fàttalikoo saa yu jotee incha allahu taala ñu waxtaan ci moom fàttaliku ay jikkoom te at mu jot ñu waxtaan ci te ba tey jeexalaguñ ay jikkoom waaye géej gi nga xam ne moom la ko suñu borom defal ba tey laalaguñ ci dara mën naa ne mën naa ne boo doon duy ab booli daal naa bu booy bu booli bi feesee liy tuuru ci booli bi rek mën naa ne moom la ñuy jottali ko waaye la ci booli ba laalaguñ ko kon ça veut dire que ne géej la goo xamante ne liggéeyal na yàlla waaye liggéeyal na Cheikhul Khadim liggéey bu rëy rëy rëy boo xam ne waxtu wu ne mën nañ koy waxtaane te du jeex xam naa ñu fas yéene cee ànd ak suñu mbokk ak Serigne Serigne Cheikhouna Mbacké euh, mu sii di mu sëñ Baara Xuréja waaye ànd ci it ak sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëñ Xadiim moom sëñ Baara Xuréja ñu fas yéene waxtaane jëmm jooju nga xam ne mooy sëriñ Baara Xuréja ngir liggéey bi nga xam ne liggéeyal na ko yàlla waaye liggéeyal ko Cheikhul Xadiim radiallahu taala anhu yàlla nañu yàlla fay ci barkeem damay jox sëñ Seexuna mu di nuyoo rek ñu njëkkante waxtu bi ma jox sëñ Fàllu mu nuyoo inchaa allahu taala ñu daal di dikk ci lubbul mawduu bi inchaa allah sëñ Seexuna fal tatafaddal mashkura aoudu billahi min alshaytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin ilmakkiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ak fu mbokk mën a ne ñu ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah eh, di tàmbali nuyoo bi rek ci Cheikh Mahamadul Amin Sëriñ Baara jërëjëf di ko sant bu baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def waxtu bu nekk. jërëjëf euh, di ko nuyu di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñooy topp émission bii di keppaaru mag ñi. Mm-hmm. nga xam ne mag mu ne danañ ko fi indi waxtaane ko. Mm-hmm. jàngat ak dundam ngir jullit ñi ak fi jamono toll kenn ku nekk. Mm-hmm. mu am lu mu ci mën a yóbbalu. di nuyu itam sunu naataango bii ñu bokkal plateau bi muy Serigne Fallou Mbacké. di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko ñoo topp émission bi ak fu mbokk mën a ne di nuyu itam suñ kilifa yu baax yooyu nga xam ne ñoom lañ bàyyi foofa ci saam mm-hmm. sëriñ Cheikh Tedd mi nga xam ne moo amee jataayu sëriñ Baara Xuréja Mbàkke mm-hmm. di ko ñaan yàlla mu yàggal ko fi sëriñ Ahmadou Mbàkke moom Cheikh Sidiya Euh, sëriñ Cheikh Ismaïla mii fi ne xalifa borom saam waaye di nuyu itam ak a ñaanal sëriñ tax ak mboolem njabootu Seexul xalim gi yëpp. Mhm. kon sëriñ Baara ni nga ko waxee rek incha allah ganaa bu nu nuyoo mbokk yëpp rek. te di leen siyaara. di leen mhm. ndokkeel di di leen massawu coono. Mhm. Eh, xam nga ne ñi ngi dëgmal bis boo xam ne sabab la ci gisunu jataay bi. Euh, kon moo waral ñu ñëw fi di waxtaan kon gannaaw bu nuyoo bi jàllee rek xëy na dañu daal dugg ci waxtaan wi incha allah. baarakallah Serigne Cheikhouna jërëjëf nuyoo bi jot na jotali na ci sab nuyoo la ñuy dugal suñu nuyoo ziyaare bu baax a baax Cheikh Ahmadou Mbacké Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mi nga xam ne moo amee jotaayu maam borom Cham muy Serigne Cheikh Ismaïl maa ngi koy ziyaare bu baax a baax a baax a baax moom mboolem njabootu maam borom Cham yëpp yéen nag buntu kër yi borom Cham yëpp ñoo ngi leen di ziyaar bu baax di leen ñaanal yàgg wér waaye di ziyaare it buntu kër sëriñ Baara Khourédia bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey muy seriñ Cheikh Tedd Mbacke moom it di ko ñaanal yàlla yàggal ko yàlla wéral ko yàlla mottali ko mboolem ay naalam moom mboolem ay rakkam waaye moom mboolem ay doomam ak ay njabootam njaboote xolam ak njabooti deretam mhm. muy taalibe bi yeeg ñëpp rek xam naa sëriñ Fallou incha allahu taala da ngay nuyoo rek su ko defee ñëw daal di aoudu سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان وإسلام إلى يوم الدين mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ak fu mbokk mën a ne di ñu bàyyi xel wala mu ñuy topp ci émission bi nga xam ni mooy keppaaru mag ñi ñu ngi lay nuyu te di la ziar te di la ndokkeel te di la jaajëfal di njiital ci nuyo bi Sëñ Baara mi nga xamante ni waxtu ne mu ngi koy xam ci ak defar ak di jëf lu baax ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu suñu Cheikhouna mm-hmm. di nuyu mbooleem kilifa ya nga xam ni moom lañ bàyyi fa Touba euh, di nuyu Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ziar tey ñaan yàlla dëgëral ko bu mbooleem li nga xam ni bëgg na ko bëgg na koo liggéen ku tedd ki mu jàpp ni te na mu ko bëggee te mu mottali mbooleem ay naanam mm-hmm. di na ko noonu di ñaan sëriñ Cheikh Ismaila borom bi dëgëral ko te yàggal ko fi di ñaanal it suñ Cheikh Tedd ak mbooleem njabootuk suñ baar xooy gi ñi ñi fi ñu jiitu woon yàlla na leen yàlla yërëm ñi fi desit yàlla na leen fi yàlla bàyyi suñu kanam yàgg ñoo jiite mm-hmm. yàgg naal ñu topp seen ginnaaw euh, ginnaaw nu yooyu yooyu nag ni ni ko waxee rek xam naa dañuy ziar mbooleem fu mbokk mën ne rek mm-hmm. euh, ni ko mbokk mi jiitu waxee rek dañoo jëm bis boo xamante mm-hmm. muy bis bu rëy bis bu am solo lool te muy fàttaliku góor yàlla. Mm-hmm. xam naa damay bañu a sori sax waaye daan lu lu day loo xam ni mënut ñàkk ndax nit bu ñu demee ba fàttali fàttaliku fàttalante wuñu rek. Mm-hmm. sànku day daal di yomb. Mm-hmm. xam naa dañ lay daal di. Eh, fa inna dikraa tanfaul muminin. comme ni nga ko waxee rek. fàttali day ab jullit. xam naa dañ lay dellowaat kàddu gi tey ziar ñëpp tey ñaanal ñëpp tey. waaw yàlla na yàlla def ak jàppandi ci lépp rek baarakallah am na solo sëñ Fallou baarakallah min almuminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh fa minhum man qada nahbu wa minhum man yantadir waaye wa ma baddalu tabdila sëriñ Cheikhouna bu am na ci góor yàlla am na ci jullit ñi ay góor yàlla yoo xamante ni lañ diggante woon ak yàlla ñoom kóllëre gañ fasante woon ak yàlla matale nañ ko firiwuñ ko benn yoon kenn ci góor yàlla yooyu muy sëriñ Baara Xuree mi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee xam nga ne suñu borom tabaraka wa taala alayhi salaatu wasalaam bi mu ko bëggee yónni da koo waajal boole kook ay wayjur yoo xamante ni mënee su koo jam ci genn wet mboolem góor yàlla yiit su foofu la leen suñu borom tabaraka wa taala jaarale wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi it idni rabbi loolu laa la alquran wax mooy soo soo bëggee meññeen mu rafet da ngay wutub soñjaan soñjaan mooy suuf su dëgër suñ gëj a bay nga nga go nga euh, ruuj ko ji fa nji mu rafet su ko defee bu saxee gàncax ga dana dana dana mën a rafet waaye ku fekk foo xamante ni yàgg nañ koo bay te saw jiwu rafetut nga di fa ji soo boobaa gàncax goo am yaa ko teg sa bopp wala si xabu sa laa yaxruju illaa nakidaa loolu alquran la sëñ Baara ji mi ñuy waxtaanee sëriñ naa fan la ko suñu borom tànnali ay way jur fan la ganee àdduna ñenn ñooy ay way jurum ak fan la ganee àdduna ak la ganee àdduna incha allahu taala. jërëjëf sëñ Baara jërëjëf ci laaj bu am solo boobu. Mm-hmm. ni nga ko waxee rek sunu borom waxtu woo xamee ne namm naa tànn nit ku mën a doon tamu bokk ci aw ñañam ñu ko jege. Mm-hmm. bokk ci xaas xaasiyaam faw mu wutal ko laltaay. Mm-hmm. ni mu xewee ci ambiya yi fi jiitu. ak rusul noonu la xewewaat tamit ci awliya yi nga xam ne itam ñoom la sunu borom tànn. ngir ñu war a leeral suuf ngir ñu mën a leeral suuf si mm-hmm. baaqin ada ardahu bil awliya mm-hmm. eh, mu bokk ci ñooña nag Cheikh mm-hmm. Mamadou Amine Bara Khourédia mii mi nga xam ne damay faral di wax ne feeñu jamonoom feeñu jamonoom ak ku génnam àddinaam lépp taarix la ci yoonu murit alhamdulilah ndax moom mi ngi feeñ jamono ci 1895 1895 boobu mënu su koo wax te sa xel du dem ci tukkib Serigne Touba bi. Mm. barakal tukkib bi nga xam ne yoonu murit lu nu am te di ko tiitaroo. Mm. ci bis boobu lañ ko am. Mm. alhamdulilah Cheikh Mouhamadou Amine Bara Khourédia ñi ko meññ itam kenn ku ne boo sañoon ñu meññ la. Mm-hmm. muy baayam ju tedd jooja di Cheikh Mouhamad moom Soxna Jaara. ñu ko siiwee ci borom saam magi mag. Mm-hmm. Mamor Jaara moom mooy waajuram. Mm-hmm. Mamor Jaara mi nga xam ne. maanaam kenn la woon ci mbaax kenn la woon ci ragal yàlla mm-hmm, mm-hmm. ndax jamono mënul indiwaat ku mel na moom loolu moom ñëpp mën nañ koo seede ndax koo xam ne guddi gu jot téeméer ràkk ngay naafi la te ab kaamil nga cee tari yamitu yusalli thumma yusbihu saa'ima mm-hmm. wa maa juuduhu illaa ka antaari nga xam ne loolu muy def lépp <laughs> ko loolu suñ baara suñ baara suñ baara samat amin baara <laughs> moo waxoon loolu mu ne moom bu guddi daraan fanaan mm-hmm. yamitu yusalli daraan fanaan di julli di naafila mm-hmm. waaye bu xëyee xanaa day nelaw thumma yusbihu saa'ima dafay woor dafay woor waaye xanaa ci loolu rek la yam amul geneen baax gu ci ne ma ne am nag tab de waaye tabam nga daal nuruuma lu may waaye wuy sotteeku rek wama juuduhu illa ka am toori waabili waaw taw waabi xam ne taw dëgg lay doon day sotteeku te du xam arrêt kooku mooy waajuram doon koo xam ne mboolem kàngi mi yoonu murid bi ñëpp mën ngaa wax na jaar nañ ci ay loxoom. yoonu murit bëri na ko ñu naan la diw nii la mel diw nii la mel di ko tudd ci xam-xam. te fekk ne maanaam doo doo xam ci moom lu may ne jaar na ci ëttu borom sax. Mhm. Mhm. waaw bëri ci mën a tudd. nag ci ëtt boobu la feeñ jamono. Mhm. Euh, mi ngi feeñ jamono ci at moom ma la wax. bi mu feeñ jamono itam. dafa tolloog euh, gannaaw nopp nopp noppaloog sëriñ bu bi mii ni jaayi Seexul Xadim waaw sëñ bi sëñ bu sóobee ne lewee hmm. te fekk booba sëriñ Touba ma nga Mbàkke hmm. léegi sëriñ bi dafa ñëw hmm. ngir jaale si sëriñ bu soobee ci la ko Cheikh Mouhamad Diarra xamal ne que euh, kër gi am na gan mu tuddee ko mu tudd ko tuddee ko Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam xamuloo ne sëñ Baara Mouhamad mooy diw turam waaw lan moo sabab tur wi nag mu tuddee ko ko est-ce que dafa yonente daf koo neex rek dëgg la yonente neex na Sëriñ Tuubaa waaye est-ce que daf koo neex rek mu tuddee ko déedéet da cee am ndigal mm-hmm. sa yonente salaa salaam moo ko digal na ko tuddee ma tur wi mm-hmm. léegi nag mu tuddee ko kan mm-hmm. mu tuddee ko Muhammad Ali sa Muhammadul Amin mooy ci yow laa njëkk a albaar moo naka baax lay tekki voilà <laughs> boobu yàgg na loolu la waykat bi Sëriñ Cheikh wax ne wa minhu ruwina anna taaha Muhammadan xaalat bihi summini qad qaala li cheikhi fii bawal fii bawal <laughs> waaw maanaam <laughs> sëñ Cheikh mu wax loolu waaw sëñ Cheikh doomi si muur Cheikh la sëñ Cheikh mu si mu si waaw kenn la ci njaboot gi moom moo doon way sëriñam sëriñ Baara Xureja wax loolu ne ci moom mm-hmm. nettali nañ yonent sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. moo sàkku ci Seexul Xadim mu mm-hmm. tuddee ko Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu tuddee ko xam xam nga tur wi moom ima xoolal baayam yonent sa lañ ko tuddee moom yonent lañ ko tuddee ba ci waajuram encore boo xoolee juróom-ñaari maam kenn génn ci Muhammad kenn génn ci Muhammad dégg nga wax waaw kay te moom ki ko ki ko jur muy sëriñ Mor Jaara fàttali ko ci Jurbel bi ko sëriñ bi woowee mhm. lalal ko laytaal jooju laltaaji mu mhm. delloo ko mu mhm. lalaat ko mu delloo ko lan la ko wax euh, ñoom ñaar ñëpp bokk bàyyi fa toog toog ci suuf biñ noppee lu ko sëriñ Tuubaa wax sa turandoo moo fi ñëwoon daf laa bëgg a gis. bëgg laa bëgg laa gis. waaw muy yéen salaay salaam. Mm-hmm. mu jaaxale ci loolu mu ne ndax dafa laa jaaxale mu ne waaw mu ne yow de da ngaa umpale lu bari sa bopp. Mm-hmm. xamuloo ne mboolem kuñ ko tuddee yaa ko ci gënal. wallaahi ndeysaan waaw xoolal nag ci ci ci. alayhi salaatu wa salaam ci nga xool jullit ñi niñ toll. nekk un milliard et quelque. Mm-hmm. ni te nu mu jullit ñi toll rek jàppal ne lu ko jege ci ay turandoo yéen salaay salaam am na. jege na ko wallaahi ndeysaan wallaahi ndeysaan. te yooyu yëpp di ay turandoo am ay awliya yëpp ne ca ñu Touba seede ne mboolem ku ñu mas a tuddee sëñ Touba ku yonent sallallahu alayhi wasallam yow sëñ Mor Diarra yaa ko ci gën a kooku ñu wëlbatikuwaat ñaanaat ne laaj ndigal joxe ndigal boog mm. Sëñ Tuubaa ne ko kii nañ ma ko tuddee ñu tuddee ko ko mm, kon am na munaasaba tur léegi ñu mm. tuddee ko Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci nga ñu xam le it ne moom la sëriñ bi mujjee tudd soog a dem ci géej gi soog mooy tur wi mu mujjee tuddal boppam waaw kay wu mujjee tuddee boppam mujjee tànn tuddee ko door a dem gi baarakallah baarakallah léegi nag mu feeñ foofu jamono. te ëttu boobu ëttu xam-xam la. ëttu mbaax la ëttu ragal yàlla la. dëgg la mu seq ko ak ku ñuy wax soxna Xureeja Xulle. soxna Xureeja Xulle yëpp bokk askan bu baax. sëñ Abdou moo ko jur. waaw ak soxna Jee Caan. soxna Jee Caan. soxna Jee Caan. Mm-hmm. waaw ñoom ñu doon askan woo xam ne askan bu baax la seen askan boo ko toppee daf lay yóbbu pir. Mm-hmm. waaw am na ñenn ñi. Mm-hmm. ñenn ñi bokk waaw fii ci Xulle. waaw mu doon askan woo xam ne. Mm-hmm. fii xanaa ku leen umpale waaye ñi leen xam xam ne moom ci mbaax. am na a xam-xam rek ci lañ ne. foofu la feeñ jamono. Mm-hmm. nekk koo xam ne it. Mm-hmm. Euh, bi mu feeñee jamono ci at moomu. Euh, dafa nekk at moo xam ne atum naa atum naa tànge la. ci baatin. waaye ci zaahir. bëri woon na ci yoon murit ñoo xam ne dañoo jàpp ne naqar la mhm. ngir lim tombeel mhm. na sëñ bi ñu ngi koy fexe fexeel mhm. mi ngi war a dem ci tukki ba te tukki boobu ñun mooy sunu yokkute mooy sunu njëriñ waaw bu bu fekkente ne question bu foofu la yem am na solo mën naa waaye bu dee dafay aajowaat jàll baarakallah am na solo dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek li doy na sëkk wax dëgg yàlla li doy xam andi nga ko mooy 1895 la gane àdduna mhm. Mhm. ci Mbàkke Bawol la gane àdduna mhm. ñaari way juróom it mooy Cheikh Mouhamad Diarra xaniyu ali taarif la yaa ko wax léegi ñi raw ci réew mi yëpp moo leen jàngal alhaaji Mbàkke Buso la ko sëñ musaa ko waxoon dafa doy ca yooyu at ci borom Sam ca yooyu at la ahla haaji Seexu Buuso laxase Saalum ñëw Bawol di duusu ànd ak Serigne Mbàkke ñu jaari Mbàkke waaw ngir sàkku alxuraan ju ànd ak barke Cheikh Umar Jaara moo leen tuural boobee ku fay kanfoore moo lay seetal ma nga taree fa Cheikh Mamar Jaara fa Bamba mu rëy daara na <laughs> loolu rek moom doy na ci borom Sam soxna xëre joxul la yit moom nga xam ne mooy woy juróom it mm-hmm. wax nga ko léegi mm-hmm. wax dëgg yàlla sëñ Abdou Xulle mooy way juram mook tafsir Mamar Xulle ñoo bokk way jur wu góor ak wu jigéen macha allah mook tafsir Mamar Xulle mhm. góor gi Masila Hatta moo juloo moo juróon sëñ Abdou Xulle mooy seen maam soxna Jéen mooy seen way jur wu jigéen ña nga ami bokk it pire mhm. ndax tafsir Mamar Xulle mhm. daa jàngal sëriñ pire ba noppi may ko doomam ju ñuy wax euh, mati xulle mati xulle moomu la sëriñ piir dëkkoo am ci kuñ naan fat siise fas siise moo jëroon soxna Mariam Dieng Saalami alhaaji Njuga Kebe yoroon mm-hmm. yal na yàlla boole leen yërëm te jéggal leen am nañ fay bokk noonu nga ko waxee noonu la demee barakallah moom sëñ Baara Xuréja moom yàlla yàlla yàlla fayal ñu ko suñu borom tànnal na ko ay way jur waaye it euh, gane gi mu gane àdduna it munaasaba bi mu am mm. ak euh, dem euh, demuk Serigne Touba ci liggéeyam bu tedd boobu nga xam ne moo indi Serigne Thiam bu duun bii mm. am na solo ndax tuddee gi mu ko tuddee yonent bi alayhi salaatu wasalaam Serigne Touba yonent bi la doon liggéeyal Mm-hmm. ndax ci sëñ sëñ bu soobe mii mm-hmm. fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tabaski mm-hmm. la la génn àdduna bi ñu tabaskee ba am juróom-ñaari fan fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tabaski la sëñ bu soobe dellu dellu ca boroomam sëñ Tuubaa it mi ngi dem ci tukkeem bi ci weeru safar kon da xam ne kon sañ sëñ baarax réeja ci diggante tabaski ak tamxarit yii la ganee àdduna benn weer lañ ci teg sëñ Tuubaa dem ci tukkeem boobu muy xarit yow ma sabti saamina asar jooju mu waxoon bi sëñ bu soobee noppaloo ak bi mu ko defee daanaka ci diggante ñaari weer lay war a toll ndax sëñ bu soobee fukki fan ak juróom-ñaar ci tabaski la faatu sëñ Tuubaa jaale si ko ci jàkkee Daaru Xuddoos ja damay bañ a guddal ngir njëkkanteeg waxtu yi waaye sëñ Fallou loolu bu dee am nga loo ciy dolli ak dikkan ñu ci fan la jaar ci wàlluñ jàng ndax doomi soxna man damay wax ne du wax doomi soxna ndax képp ku juddoo ci islam rek soxnaa la jur waaw képp ku juddoo ci lislaam rek doomi soxna la dama naan doomi jullit fi ñu ko baaxoo jaarale fa lañ ko jaarale mooy ci jàngal ko xam-xamu diine fan la ci jaar ci wàllu jàng incha allah rihala ilmiya yi nga xam ne def na ko. alhamdulilah suñu cheikh na leeral li am solo suñu euh, damay njëkk a coof tuuti ci li mu mooy nit ki. saa boo xamante ni borom bi nar na koo dénk dara rek. Mhm. daf koy waajale lay waajur yu baax. Mhm. te defe naa ni loolu lépp yi daje na ci Sëñ Baara mm-hmm. ndax kuñ ni borom saam mooy sa waajur mm-hmm. soo na xoro joxulee mooy sa waajur mm-hmm. te ñoom ñëpp bokk fu baax doon ay nit ñu baax nu xam leen ci ak jaamu yàlla loolu rekk doy na dëgg la waaye dadi nag moom fam fa fa fa fa mu jugee wala fa mu soxoo fa mu bàyyi ko ñoom nooy ëtt boo xamante ni maanaam lu dul diine ñoru leen te lu dul diine yi taxu leen a jóg dëgg la moo tax maanaam euh, ku wéer ku ci ne la butéel ba def lay xëy wallaahi <laughs> loolu la war a fii di wax waaw mhm. Mhm. maanaam nga xam ni bi nga xamante ni feeñ na jamono it mhm. loolu doy ko waaye dafa dem jàngi ndax nit it mënut a judd dee ndaale xam-xam. moom kat bi daan taallam fa laysa almaru yuladu aaliman. Mm-hmm. wa laysa axul ilmi kaman huwa jaahidu. kaman huwa jaahidu. wa inna kabira alqawmi laa ilma indahu. sagirun mm-hmm. ida ltafat alayhi almahaafid. baarakallah. daal di nit ki de mënut a judd am xam-xam. <laughs> Mm-hmm. te ki réer ak ki xam ak ki xamul mënu nooyam. ku xamul rek da ngaa réer. wallaay ndeysaan nit lum lum lum doon lum ami at at at ak lum bokk fu baax. bokk fu baax bu xamul rek. nit ñi duñ ko teg fañ ko war a. hal yastawi alladina yaalamun walladina laa yaalamun wallaahi innama yatazakkaru ulul albaab loolu alxuraan la la ah. te xam maam xam-xam day loo xam ne mënta ñàkk ci nit dëgg la nit ki bu ko jàngul rek mm. bu waxee rek mm. wala mu jëf rek nga xam faam xelam toll mm. borom maqaama mu ngi junj lu mel noonu nag ni Euh, nit ki fee feeg waxut wala bindut mhm. mënees nañ koo topp ci bañ a ci dara waaye saa soo xëy nu xam-xam benn nga benn waykat li mitli hada mhm. fa inna al jahla maqbaratun mhm. wal ilmu yafdaxu man fi aqlihi xalalu nit ki saa boo xamante ni rek amul xam rek boo waxee da nga xam fi am fi am xelam toll suñ baara nag <clears throat> bi mu feeñee ci waajur yu baax yooyu waaye loolu doy ko dafa xam la nekk fa yàlla it am na lu koy maye borom bi dafa euh, ci xadis kursi yi euh, yonente yàlla dafa wax ni mm-hmm. maanaam bala ngeen xam leen ma doog ma jaam kon mm-hmm. mënta xam-xam day loo xam mun ñàkk mënta ñàkk te mm-hmm. jamono boobu it manees sañoo wax ci ñi gën a ñi raw ci réew mi ko jàngal ndax kuñ ni sëriñ ma gajaga bokk na ci ñi ko njëkk a jàngal te moom wax nañ ni. Mhm. daara jam sosoon. mu ko sosee ci ndigalu borom saam. Mhm. borom saam a ko jàngal. te borom saam it moo ko jàngal ko muy jàngale. kon kooku moom. kenn xamul nu nu mu war a mel ku borom saam jàngal rek. Mhm. maanaam kii maa ngi raw la bokk baarakallah jaar ci siñ euh, mbak siñ daam Abdourahmane moom it xam nañ ko njabootu sëriñ bi ñëpp moo leen mm. jàngal. Mm. Mm. Euh, te ñu te li ñuy nettali it mu doon jaamkati yàlla. te dañuy wax ni nit it saa bu la jàngalee nga jëli jikkoom da lay yow. day jeex day ci yow ndax. ñaare ki lay jàngal am xalaatam la lay wax ak i gisinam. dëgg la bu melul na mu war mel rek am xelam ngay daal di. dëgg dëgg kon bu jàngee ci ñooñu rek. nii mu mel kon laaxarwa la ñuy wax. laaxarwa dëgg la wallaahi mu euh, ba pare wax nañ ni mu tam foofu la jàngi jàngum alquraanam. ci yooyu la bi mu paree mu soobu njàngum xam-xam mi mm-hmm. ndax damay mos a dégg benn mag ni ma ki mm-hmm. la jàngal alxuraan ba pare mm-hmm. alxuraan ji nga watt ko mokkal ko ba mu rafet day mel ni dalaa tabaxalum néeg caabi jël caabi ja sànni ci géej. wallaay de caabi jooju da nga ko war a war a. moom nga war a jeexi te la a jeexi nag daani <laughs> loolu daani loolu xam-xam. mooy xam-xam bi dëgg mooy loo xam ne mënut a ñàkk boo hmm. xamoon alxuraan ak li ci biir te xamoo li alxuraan di firi xamoo li muy wax. dëgg la ko du la yomb jëfe ko du la yomb dëgg wala boo koy jëfe it yow sa xam-xam yi des na. day dañoo war a xam borom bi subhaanahu wa taala pare doo koo jàpp. Hmm, hmm, mu tàmbalee am njàngam ci Sëriñ Cheikh Bousso wax nañ li ci njàngam ci moom la ko jàngee suñ Cheikh suñ Bousso bi dëgg la mm-hmm. mm-hmm. bi mu nekkee ci moom ab diir wax nañ it jaar na ci euh, maam Thierno Cheikh mm-hmm. Ibrahima Faty moom it ku ko xam la nga gisi mbindam rek dangay xam ni moom wax dëgg fa yàlla borom xam-xam ñaw na lool kon bu jaaree fii daan ak nuñ mën a wax ci moom rek da ngay xam ni kii moom nii rek la. borom xam-xam la mën a doon borom xam-xam rek la. dëgg la dëgg la dëgg la xam naa ngir bañ a. baarakallah am na solo am na solo waaye yama ko wayoon sëñ Seexuna ca bu yàgg. Mhm. yaakaar naa ni su ma juumul damaa fàtte bay di waaye am na ci bay di woo xam ne dama caa waxoon jaar na majaalisu ku siiw ka seexu ba mu fa jugee dëgg ma di daaru yu waaxu macha allah waaw yaakaar naa noonu laa ko bindee woon fàtte xam naa nag damaa xaw a damaa xaw a jëm mag léegi may <laughs> jaar na majaalisu mhm. ku siiw ka seexu mhm. ba mu fa jugee dëgg mali daaru yu waaxu daa xam naa nag damaa xaw a fàtte tuuti léegi moo tax <laughs> baarakallah am na solo suñ fàllu buñ ne ndax boroom xam-xam na li nga wax am na solo gis nga ki la tabaxal ab néeg mhm. ba def ca la ca war a nekk tëj buntu ba jël caay bi jël sànni géej li lay doy soxla mooy xam la ca biir néeg moo tax faawu dangay nga wëri caabi ja mooy kon ki la jàngal alxuraan ba nga wattu ko wan la yoon wiñ koy wiñ ko war a jaare kooku moom fawu da nga jaa da jàngi lu mu complété alxuraan ji tey ñii nga wax ni ñoo ko jàngal wax dëgg yàlla ñooy ñi rawoon ci réew mi ñañ fi xamoon ci ñi fi raw ku ci mel ne Serigne Cheikhou Bousso mii nga xam ne wax dëgg yàlla borom xam-xam la woon bu ñu ñu xam sëñ Dame Abdourahmane Lo dama ko jëlali sëñ Maa nga Gajaga ñenn ci njabootu borom saam gi moo leen jàngal ndax ci ron borom saam la nekkoon ku ci mel ni it maam borom daarul yi moom gis nga ko sëñ bi bi mu fiy jógee moom la batale woon njaboot gi ngir mu jàngal leen ñi nga xam ne ñoo fi doon ay ñi fi tolloon ci jàng ñëpp moom la leen féetale woon kon gis nga da ngay gis ne kon ñi fi bor ay boroomi xam-xam ñoom ñoo ko séq xam naa sañ seexu naa damay njëkkanteeg waxtu wi rek ci bi mu amee xam-xam moom sëñ baara ji ndax dafa bind wala dafa wax dafa bind wala dafa wax parce que it nit ndax am na xam-xam léeg-léeg nga gis gis nga bas naa dikk si si Ahmad Rafaay yi di ko wax lu am solo am solo. Hmm. dañu fi mu ne yoonu murit buñ doon xool maanaam liñ naan yoonu murit ñi fi raw. Hmm. gisoo seen mbind doo gis seen mbind mukk hmm. daal ciy cité si Ahmad Rafaay yi moo moo moo cité de nekku ci mel ni Mamor Jaara borom Cham. kin mënta wérante ne xam-xam la ndax suñ ne bindu ti ñi ñi ëpp ci ñi gis ñu bind ci yoon wi jaar nañ ci loxo moo leen jàngal. ku ci mel ni sëñ Mbàkke Buso rek doy na ci. ak sëriñ bi sëriñ bi ak Seexul Xadiim radiyallaahu anhu mm. xam-xamu aarut bi mu taalif yi xasiida yii borom saama ko ko jàngal mm. loolu rek firnde la ci ku ci mel ne borom daaru moxti yi mm. léegi tax nag léeg-léeg ñuy laaj ba xam diw mi am xam-xam tekkiwul damaa bëgg a wax ne ñàkk bind tekkiwul ne borom xam-xam la <laughs> loolu laa bëgg a loolu bëgg dëggal daal waaye nga indil ñu ci dara ci maanaam ci ay injazaatam ci wàllu xam-xam insha allahu taala jërëjëf sëriñ Baara jërëjëf sëriñ Fallou. waxtaan wi am na solo lool macha allah. ñaan yàlla mu dolli laa dëgëral. Mm-hmm. li nga soxla ci xam-xam sunu borom yombalal la ko. Mm-hmm. Euh, Serigne Bara Khourédia benn waykat rasul shaari Mouhamad Bousso ha hmm. dafa wax ne fa min naslin karimin hmm. da doon marséyal Serigne Bara Khourédia fa min hmm. naslin karimin jaa lakin bi juhdi minhu kaana a sha'ni lay ndeysaan ne moom dafa bàyyi ko fayim bu baax <laughs> gerte koo xam ne gerte gu tedd la fayim bu nag ci effort boppam góorgóorlu boppam ci la jaaree nag ba nekk góor yàlla ba nekk koo fa min naslin karimin jaa lakin lakin bi juhdi minhu kaana azima sha'ni léegi loolu mooy li Sëriñ Fallou daane leen léegi mm-hmm. euh, ak muy waxtaan bu am solo mm-hmm. mooy nit ki feeñ na jamono mm-hmm. jàng na alquran jàng na xam-xam mm-hmm. léegi nag fu xam-xamam toll mm-hmm. ak nan moo jur ci xam-xamam boobu noonu xam-xam boobu lu mu jur nan euh, ni ko waxee naka jekk mag ñi dañ daan boole jàng ak yare ci yàlla boole jàng ak taqwa maanaam yar la ci ragal yàlla yar la ci jaamu yàlla moo tax sëriñ bi itam daan na insisté ci loolo ngir bëgg njabootam gi muy yaral boppam loolu nekk ci ñoom euh, loolu nga gis tamit alquran di di ko di ko soññee ah. di wax ci ragal yàlla hmm. waaw wattaqullaha wa yuallimukumullah hmm. ah, ilmu boobu yàlla di la jox nag loolu mooy hmm. xikma a te xikma boobu yàlla nee na képp koo xam ne jox na la xikma jox na la xam-xam bi gën ci xam-xam bi waaw xayran kay jox na la yiw wu bëri na lu lu bëree bëri loo xam ne boo ko doon xayma mënoo koo mënoo koo mënoo koo mënoo koo mënoo koo jàng <laughs> dëgg loolu ci ci njariñul xam-xam la ndax am na mm-hmm. suñ Moustapha Dieng daf ko doon way ne mm-hmm. fatal xaaza kullal faxri diinan wa mawlidan mm-hmm. euh, mata saara saara alxilmu wal ilmu wal xikam. mataa saara. sooral. saara saara la ay naam bisi. mataa saara saara ay. xilmu baarakallah wal ilmu wal xikam. wal ilmu wal xikam waaw mu ne ascama ngi nii soo xam ne. Uh-huh. mboolem luy pukkarew. Uh-huh. mboolem luy gañaay. Uh-huh. mboolem luy tedd nga rek làq na ko. ci diine nag laa wax. ak ci judduwaay. dëgg la ñu ne kii daal xawmuñ ko ba tey mooy kan. mu ne mooy ki nga xam ne daal buy dox. na la wóor ne sagoo ngi dox. boo ko gisee muy dox na la wóor ne ku lewet ngi dox. waxuma la loolu nag waaye nee naa la saa boo gisee muy dox mm. na la wër na xam-xam mooy dox dëgg la ba tey doy lu guma de waaye boo ko gisee muy dox rek da nga xam ne xikam mooy dox xikam boobu nag yéen salaa salaam dafa amoon lu mu ci wax dafa waxoon ne xudil xikmata mm. waaye wala tubaali min ayna aqatlaha mm. xikma boo ko foo ko fekk mën nga koo jël waaye bul am soxla ci ana fan nga ko jëlee tey nag am na sens ñun xam nañ ci nga ko jëlee dëgg la xikma bii ñu nar a wax ah, ah, ah. xam nañ ci kuñ ko jëlee euh, Maodo Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu mm. dafa amoon lu waxoon mm. dane euh, njariñ walla wax mm. euh, wa wax foo ko fekk muy wax juñ mën a jariñoo na nga ko jël waaye bu lijjanti ci kan la bàyyi ko loolu mooy li yoon salaa salaam wax na alayhi salaatu wasalaam dégg nga loolu waaw Seydina Cheikh dafa amoon lu waxoon dafa ne Euh, man lam yajlis mm-hmm. ala kursiyat alxikma fala yambaqi lahu an yamura mm-hmm. bil maaruf aw yanha an mm-hmm. anil munkar waaw koo xam ne toogul ci seesu xikma maanaam sees baa moom xikma la bu fekkee ne toogoo ca nee na kon jaaruwul ci yow ngay digle lu baax wala ngay tere bon <laughs> parce que nit gis nga sax udoo ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana waaw ci la wax ne nit ñi dañuy wuute dañuy wuute maanaam ci woote da woote kat yi dañuy wuute mm-hmm. ci kuy maanaam dañuy jaawale woote ak jihaad jihaad moo laaj tarab mm-hmm. moo laaj teengal mais mm-hmm. mais woote daawa waaw woote xikma la laaj dëgg la waaw xikma booba nag ñi ko yàlla jox bëriwun ñi ko yàlla jox bari bëriwun sëriñ Bara Xuréja dafa bokk ci ñi ko yàlloon yàlla yàlla joxoon na euh, waaw xam nga imaam Ali karamallahu wajha dafa waxoon ne ida tamman aqlu naqasal kalaam bu fekkee mooy mooy bu fekkente ne xel dafa mat. Mm-hmm. faaw nit ki ay waxam dana néew. Mm-hmm. li muy néew na néew nag njariñ lay doon. dëgg la mm-hmm. te nit saa boo amee xikma. ay waxam faaw ci juróom yi rek lay lalo. mooy dana fekk ba dana fexe ba. xam sabab bi tax muy wax. waxtu wa muy wax. ak naka lay waxee. ak ñi may waxal. Mm-hmm. ak place bi muy waxee. ak place bi muy loolu la benn waykat tënkoon ne. Mm-hmm. Euh, usiika. Mm-hmm. fii nadmil kalaam bi xamsatin. in kunta lil muusi shafi safiqi mutia. baarakallah laa taxfilan sababal kalaami waxtuhu wal kayfa wal kamma makaana jamia. léegi nag mu bokk ci waxtaanam woowu. moom suñu baaru xuraja. bi mu nag bi mu xamee yooyu yëpp. dafa daan am wax yu gàtt yoo xam ne. nit ñëpp dañ daa mën a jariñ. Ah. bokk na ca yoo xam daraan wax ne. saa boo waxtaanee nit ñee ko. nëbbu na la biiram. dëgg la nëbbu na la biiram dama ci jaar rek ndax am na yoo xam ne daan laaj sax nëbbu na la biiram mooy nit ki xëy na du du la wax lépp ak loo ko jege jege jege saa yi dana wax ba nga jàpp ne kii nii muy wax noonu la demee fekk na bu am na lum la nëbbu loo xam ne ci biiram loo xam ne boo ko xamoon xeeb ko boo ko ko dëgg la dëgg la waaw daan na waxit ne nangu naa woyafal sama bopp waaye sox uh, bëgguma ku ma ci dimbale mooy soxlawuma ci dimbal te loolu xokkamaa uh, u yi daan nañu wax lu mel noonu tamit dañuy wax ne ida afrata fi tawaadu xad yadunnuuna annaka la shay'a gis nga boo ëppalee ci toroxlu mm-hmm. nit ñi dañuy foog na doo dara dañuy foog na doo dara waaw ida afrata fi tawaadu xad mm-hmm. yadunnuuna annaka la shay'a mm-hmm. waaw bopp waaye soxlawuma ci dimbal loolu ay waxam la ay waxam bul bëgg mbir ba fàtt na lu ñu bëgg ci yow waaw ba fàttan lu ñuy bëgg ci yow mm-hmm. ba mu ëpp mm-hmm. ba fàtt maanaam fàtte wane ci bëggam daal waaw wane li mu waroon réservé ci boppam sax ci fullaak ci fullaak fayda yëpp da koy perte ngir li muy topp moo tax suñu baax de ñoo orienté ci loolu de bul mm-hmm. bëgg mbir ba fàtte ne lu ñuy bëgg lu ci yow ma baaliga macha allah waaw waxaat na ne ku le yaa ko gën na ko dégg te bu ko jàpp ndax boo ko jàppee da yendu bis boo xam ne yow rek lay doon xam nga mm-hmm. nit dana toog mm-hmm. wax la ci mbir nit am na ñoo xam ne ci boroomi barke wala mm-hmm. boroomi alal li ñu soxla rek ñëw ku leen di tagg ku leen wax na yaa gën nangam nangam loolu rek soxla nan ko doy na leen sëkk ci àddina dëgg fekk na loolu yow nekkul loo war a jàpp nekkul loo xam ne loo war a téye la waaw daana bokk ca yoo xam ne daan daana wax ak njabootam ne xam denc aayul ndax boo màggee ba am ku la ca war a nekkal dana tax lu ci yàqu nga xam ko dëgg te boo amul ku la ca mën a nekkal it nga mën caa nekkal sa bopp liggéey nag saa bu moyee say wagg na war say xef dëgg la waaw saa bu say wagg dëgg la waaw na war say xef baarakallah euh, mooy loo ci defalut sa bopp rek waaw fu ñu koy defee dee ko fekki dee ko fekkee <laughs> daana wax it wóolu wóolu sama jëwrin du ma tee seeti samay tool te loolu am na sabab bu fekkente ne waxtu gudd toon hmm. fekkee waxtu guddoon na. Hmm. dana wax lan mooy. waxtu bi moom dañuy jëkkante ba wóolu sa waxtu bi dawee daa yéeme. waaw kay mi sama jëwrin du ma tee seeti samay tool. waaw bokkoon na ci ay waxam mu daan wax ne. Hmm. soo demee ci bërëb ñu war laa yëkkati teg la ca kaw. Hmm. bu ñu la fekkee ci kaw. bu ñu lay yëkkatee fu ñu lay tegati waaw fu ñu lay tegati. c' dafa war a fal boppam. waaw yéen saa mu daf ko daan wax. Uh-huh. daa daa daan ne saa boo wàccee wàcceelee sa bopp rek. Uh-huh. suñu borom daan yëkkati la. te loolu waaye booy jéem a nekk ca kaw. waaw bu kooku takka am na solo am na solo am na solo kooku takabur lay andi. te yéen saa dafa waxoon ne taxallaqu bi axlaaqillah. Uh-huh. ñu jikko yàlla yi. waaye nee nañ la nga jikkoo yëpp ba mu des alkabir takabur walaay ndeysaan walaay ndeysaan aywa mu ne yaa ma yilif mhm. nii nga ma yilifee mhm. man baara xawma loolu xam nga yaa ngi dégg si taxa mu wax waajoo am solo mu ne man daan naa wax si Moustapha Bassirou mhm. ne ko saa boo ma gisee may ñëw na nga xam ne tàggoo naa kom xel tàggoo naa ko waaw tàggoon naa comme xel tàggoon jikko te pourtant. ñaar amatu moom xel awuma sama awuma jikko. loo bëgg a def ci man rek. waaw pare naa pare naa. nag mooy mooy. mooy wax ji mooy maanaam yaa ma yilif nii nga ma yilifee man baara xawma ko. am na solo am na solo dégg naa ci mu taxaa ci njàngaleem it mu waxaat lu mel ne nga xam ne ba tey day firiwaat wax ji. ndax mm-hmm. la wax. Mm-hmm. dane dane sama kilifa. Mm-hmm. sama kilifa. Euh, maanaam euh, du ma digal du digal sama kilifa. du ma digal sama kilifa. Mm-hmm. Mm-hmm. dama koy déglu. waaye du ko digal. am ah. ni nga ma yilifee. Mm-hmm. man baara xumu ak yow laa yaakaar ju ne. te tanewuma la du tontam. am na solo waaw loolu ay waxam la. xam naa <laughs> waxtu wi daal. xam naa waxtu wi daal ma indi ci benn rek. Mhm. mooy ay jamono. Mhm. suñ baara xuraja dafa daan jugee Mbàkke. wala mu mhm. jugee den ci borom saam léegi nag bu rombee ci tool yi. dafa daan maslaa ñoom di savante ñoom di leen soññ ci jaamu yàlla ak liggéey. Euh, ba mu jigéen nag yenn ci ndonga ndonga yi daan wax ne. suñ de dafa woyof dafa woyofal boppam lii daal di ko xaw a jàmmat yooyu. sëñ Baara comme moom am na cër ci yàlla. yàlla am na lu mu ko dénk. lu mel ne nopp dégg kay ga nu mu tuddati. waaw saariya saariya ga saariyatul jabal waaw saariyatul jabal. <laughs> Euh, mu woo leen bañ ñëw. mu wax leen ne leen ana lu ngeen di wax ñun ne tekk mu ne da ngeen ne dama dama dama dama dama woyof bopp. <laughs> Hmm. ñu ne ko waaw loolu de mooy liñ wax xanaa di jégglu rek mu ne waaw man de sama woyof bopp gii de ci laa yëlifee seen bopp yu di siyee waaw seen bopp yu di daa ne ko ko am bopp ba mu ëpp doo euh, maanaam sa bopp dong ngay am doo am keneen wallaay ndeysaan am na solo am na solo euh, sama sama bopp gii ci laa yëlifee seen bopp yu yi waaw am bopp ba mu te nit saa amee bopp bu ëpp sa bopp dong nga sa bopp dong ngay am ay doo amati beneen bopp baarakallah am na solo am na solo sëñ Cheikh naa xam naa daa mel ni li ñu desi ci waxtu dafa bari ci juróomi minute rek lay war a toll wala lu ko manqué Sëñ Fallou xam naa li am solo te am solo mooy da ñuy résumer rek diggante Sëñ Touba maanaam moom ban cër la amoon ci Cheikhul Khadim ak digganteem ak jumaa ji su ko defee ñu daal dikkaat ci Sëñ Cheikh daal di tàggoo rek incha allahu taala mhm. relation bi mu amoon ak Sëñ Touba xam naa li duuf ci nag yi lépp daa xëj a doowut ci cin bi dañ doon sóor li suur góor yi rek bu ñu jël siwaatee sóoraat dara bismillah mhm. euh, xam naa damay njëkk a def tuuti ci li mu mhm. doon da di nit bu bu ko suñ borom defaree xam-xam boole ko am cër yu nekk ci moom faaw waxin wa day rafet waxin day saf yàlla yi am na solo muy comme xikma yi muy ci dégg rek danga xam ni ci ki muy ni kiimaan la daal barakallah am na solo euh, fi may njëkk a waxee nag moom moom dafa doon murid la uhuh. waaye murid sadiq la uhuh. ndax mboolem jikko yi nga mboolem la la ko suñ Tuubaa waxoon rek. Mhm. ba mu keroog ba nga xam ne jox na ko tur ba pare. Mhm. daal kii kat bu demoon ba mat a dem kër. Mhm. mooy wax ko ni ko jottali ma satale ak mu gàntal. la ma la ma defoon ci moom mu ne su mu ne doon mënuñ. dara du ko yàqati dara du ko yàqati. daara loolu mooy defar boo xam ne ab yàq xajatu. inna lillahi saadatan la shaqawata ba'daha barakallah murit la boo xam ni murit bu dëggaloon la mm-hmm. waaye ku amoon yitte ju kawe la mm-hmm. ndax dangay xam ni yoon wii nga xam ne mooy yoonu murit mm-hmm. ci li yoonu yitte la ndax rabbi asxaabaka bil himma maanaam te sëriñ bii nga xam ne mooy Cheikhul Xadim keroog bi nga xamante ni yonente bi eh, fekk ko daal xuntoos lam ko lam lam ko wax mu wax dañ ko damaa bëgg bokk ci waa ahlu badr te bu doon ñun dañ naan mustahil laak yu ni mel Mm-hmm. waaye fa mu teg ak gëtam mm-hmm. maanaam ngir bëgg a bokk ci waa ahlu badr mm-hmm. ak yam ko jaral yëpp daf koo dem def ji kon ku amoon yitte la te dañuy nettali ni am na bis mu mus a ñëw ci sëriñ bi fekk ko jurbeel joxe hadiyaam ba pare daal ni ko kat man de damay def saa yi su ma wootee ni wuyoo sama sant luñ am jox ma luñ jur tuddee ma <laughs> loolu jaaxal ma mu ni ko baara eh. ab wullikat nga ab wulli ab wullikat nag day fexe ba lañ koy wulli loo na am na solo eh, lay di léegi am naa fay tamaay fay dëgg la kon moom dafa am seere goo xam ci Sëñ Tuubaa mhm. jàpp ma ni keneen am na ko dëgg la mooy <coughs> daganal ko maanaam ni ni mu ko nangu la hadiye mhm. ni ko yàgg sa njaboot lu ñu leen jox lekk leen ba léegi man maa fay tax fay mm-hmm. Mm-hmm. kon murid la woon mm-hmm. waaye mboolem jikko yi nga xam ne moom la suñu tuwaa ñëwoon it di ko yeesal mooy sunna su yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga dégg nit di jëlee diine di ko xeexee diine xam nga léegi looloo xew dëgg la mag ñi nekkuñ ci sunna waaye ñi nekkuñ ci sunna ñoom ñoo nekk sunna amut kon buñ nekkul ci sunna ñoom sunna ci boppam sunna amut ndax ñu may sunni damay wax sànq li ko li suñ benn béyt bi sànq euh, mu ni fatan xaaza kulla alfaxri diinan diinan wa mawlidan mm-hmm. mata saara saara al ilmu wal xilmu wal xikam mm-hmm. comme ni mu ko waxee sànq mm-hmm. maanaam mboolem tedd nga gi mu am ak jikko yu baax yi mu am yëpp maanaam euh, xeet waxin wi it mm. da ko waxee ci waxin wu neex ci làkk arab ni saara saara xilm mm-hmm. kinaaya la mm-hmm. kinaaya xeetu waxin wu ñu waxee mm-hmm. waaye li li ma bëgg a wax mooy day jëmb joo xam ne daan mboolem jikko yi yi nga xamante ni moom la euh, yonente bi woote woon alayhi salaatu wasalaam alayhi nekkoon ci ak ay saxaabaam ko yeesal ci loolu lañ ko xam ba keroon ni mu doon nit koo xamante daan maam laay daa mel ni <laughs> waxtu bi daal <laughs> waaw xam naa da ngay tàggatoo waale rek moom kay <laughs> waaw ndax daal. Mhm. waaw maanaam daa xam lépp fi indi daan. Mm-hmm. mu nekkoon ci barakallah te mooy jaamu yàlla. Mm-hmm. ak liggéeyal sëriñ. Mm-hmm. ndax fi ne ñàkk ñàkk yow mu ngi tàmbalee ci yow nu andi la ci àddina. ñëpp xam li la nga xam li la fi indi te nekkoo ca. dëgg la. nit ñi buñ la taxee def loo loo loo mënut. Mm-hmm. wala nga dugg ci loo war a dugg. Mm-hmm. boo lëggee da nga wéetoog sa borom da nga wéetoog. dëgg la dëgg la dëgg la jaru ko woon. dëgg la dëgg la kat saa boo nekkee ca la war a nekk. Mm-hmm. danañ wëbbatiku yi di la di di di di ñëw. am na solo am na solo ndax uh, ku mel ni uh, benn shuara da doon wax daan ni. yunaaduuna ne fi silmi yabna zabibatin. wa inda sidaami alxayli yabna al ataayibi لولا الهوى ما ذل مثلي لمثلهم ولا خضعت أسد الفتى للثعالب سيذكرني قومي إذا الخيل أصبحت تجول بها الفرسان بين المضارب mu ni daan maanaam saay boo xamante ni nit ñi ñu ngi ci ñu ngi ci jàmm moom man moom ab baadoole lañ may jàppe waaye suñ mm. saa bu ñu demee ba soxla ma sa maanaam ci mu mm. gàtt daan saa bu ñu demee ba soxla ma rek mm. faaw ñu boole boole ma ñu boole ma ci baax nit ñi la <laughs> def bu baax kon la la fenn rek nekk ca dëgg la ñoom nag dañoo matoon mat sëkk te xam leen fenn woon ñu nekk barakallah kon xam naa damay wàccee foofu sama kàddu mm-hmm. te tàggatoo mm-hmm. tey ñaan lépp lu ñu fi wax yàlla na juriñ njëriñ mm-hmm. yàlla eh, yàlla nañ suñu borom dimbale bañ eh. topp ci seeni tànk yéen roy wallaahi walañ fi nekkee woon lépp yi ñu nekkee ko. ah ñu barke Seexul Xadiim sëñ Seexuna moom kay xam naa ne eh, moom waxtu yi daal xam naa ne. waaw kon de. damay daal xamu benn minute lay doon xaw ma génn wàllu lay doon. kon damay daal di gàttal rek ñëw ci programme màggal gi. Mm-hmm. ak tamit activité yi nga xam ne am nañu ko ci tënk rek. waaw moom te ñu fexe mu bàyyi ma benn minute rek. waaw kay <laughs> ci benn minute ah. ñu ngi may soññ. waaw kay <laughs> ah, gi xam ne ñu ngi koy waaj. Mhm. incha allah mi ngi war a nekk euh, le premier octobre. incha allah di màggal gi ni màggale Sëñ Bara Khourédia mii nuy waxtaan. lii mhm. ñuy waxtaan nag lu tuuti la. Mhm. Euh, nubda la wala sax bu matul nubda. ci dunduk Sëñ Bara Khourédia waaye. màggal gi la le premier la. Mm-hmm. mais fii ak le premier octobre am nañ ci ay activités yu am solo. Mm-hmm. le 22. Mm-hmm. Mm, septembre. dañ fi am benn plateau fii. ci Tëngéej kër Serigne Touba gi. ngir waxtaanee si Baara Khourédia ngir waxtaan si Baara Khourédia ak dundam. Euh, waxtaanoo itam tam bi al irada euh, dalalatu irada sadiqa fi xayar Cheikh Mamadou Amin Bara Khourédia mm-hmm. mandarga dëgg dëgg ak taalibe mm-hmm. naka lañ koy mën a si am na seen Bara Khourédia ki koy def mooy sëriñ mm-hmm. Cheikh Ibou Diouf sëriñ Cheikh Moussa Mour Cheikh sëriñ Cheikh naa joxaane moo koy modéré te invité d'honneur ba sëriñ Moustapha Abdou Qadir la euh, ak sëriñ Cheikh Gueye sëriñ Cheikh Mbacke Gueye ak sëriñ Bara Fall bu ñu jugee ca loolu la 27 bi ci suba gi ba ci digg ba ci gi yëpp am nañ bale set setal bu ñuy def foofu ci Touba Sall buñ ci ngoon gi la 27 boobu fële ci Touba Boustan nekkoon bokkoon ci daara yi Sëñ Baara Xoroje yi am nañ fa itam plateau spécial boo xam ne waa Boustan lañ koy seqal mm-hmm. thème ba mi ngi nekk imaarul ardi wa istimaaruha xaqiqatan quraniya fii daw i waaqia xayaati Cheikh Mouhamed Amine Baara Xoroje mm-hmm. maanaam jëme kanam àddina mm-hmm. naka naka la ko Alxuraan diglee ak nu ko Sëñ Baara Xoroje daan radiyallaahu anhu daan dundalee te ñu ko a mooy Sëriñ Gànna Mesere Maxtaar Sëriñ Moustapha Dieng Cham Euh, ki ko war a modèle mooy sëñ Abdou Lahad Bousso mm-hmm. bu ñu jógee ca loolu la wenn neuf bi am nañ benn conférence boo xam ne sët sëñ Bara Khourédia yi ñoo koy def di ko ànd ak ñëpp mm-hmm. thème bi nag mi nga war a nekk mi nga war a nekk mazahiru inxilaal alxuluqi fi mujtamaana almuasir al athar wal xulul maanaam mandarga yàqutug jikko yi yan jeexillam ak yan solution lañ ko war a wutal suñ Fall Bousso Thierno moo koy def ak ko war a seqal suñ baara mi moo nekk modérateur bi incha allah ñu ngi ciy xaar ñëpp am na solo solo suñ Cheikh naa xam naa waxtu wi daal moo ñu ko mayatul daal xam naa <laughs> na solo wax dëgg yàlla bu ñu sañoon mu gën a yaatu li maanaam ñu génn njëriñ lu ëpp lii ndax fi mu ne digganteem ak Cheikhul Khadim waxtaani wuñ ko daanaka sax mm-hmm. dañ cee laal digganteem ak Cheikh Mouhamed Fadal digganteem ak ay bokk relation yu rafet yi mu amoon. Mm-hmm. am na solo lool jàmbaar ji nga xam ne moom la doonoon ci liggéeyub sëñ bi. Mm-hmm. ba 1963 bi mu fi jugee. wax ji Cheikh Mouhamed Fadal waxoon. ne nañ ko denc ci digg armeel yi. Mm-hmm. wax Cheikh Mouhamadul Basir ne na ko taxaw. teg ci ne ko kenn denc guddi nañ ko denc ba ceegum ndar kàmm. nañ ko yëkkati ba ñëpp sii ko. ndax déggu fi luñ koy nëbbee. ne nañ ko def ci penku ci digg armeel yi ndax ñeenti xibla yi fu ko fi waaye féete mu dimbali ko wax yooyu am na solo lool waaye waxtu wee ñu ko mayeetul sëñ Moussa Ka waxoon ba ba sàkku mi ngoog ba sëñ Moussa mi ngoog ba sëñ Fallou waxee loolu mhm. yaakaar naa sëñ daa dem ci bàmmeel bi tibb ca suuf sa mhm. daal di koy def ca penkoom daal ne bu faatoo nañ ko denc foofa ndax mu taasoo ko ci barkib sëñ Fallou am na solo lool yàlla nañ yàlla ko fayal mhm. euh, seen émission keppaaru mag ñi la woon tey ñu doon waxtaani Serigne Bara Khourédia Dia kenn ci góor yàlla yi nga xam ne lañ diggante woon ak yàlla kóllëre gañ seq gañ diggante woon ak yàlla ñoom matale nañ ko ngir lan bis bu ñu koy waajal le premier octobre ci Touba Sam di ñaan xalifaam Serigne Cheikh Mbacke ak mboolem ay rakkam suñu borom guddal seeni fanta may leen i wér njabootam yi jiitu Serigne Cheikh Baara sëñ Thierno Serigne Sidiya euh, sëñ Modou seex sëriñ Abdoulahi Matiba ak mboolem njabootam yu jigéen yi jiitu yëpp ak sëriñ Abdou Thiat ak mboolem njabootam yu jigéen yi nga xam ne jiitu nañ ak ñi fi nekk ñëpp yàlla na sama borom sàmm leen ñi jiitu yàlla na yàlla yërëm leen lu ci jub yàlla lu ci dëng matadik doomu aadama la in uridu illa al-islaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ahmad Sulayman bi sarfi al-masiyat kayma taqu dasima min lirasiyati أدر إذا ازداد قلبي أذن بهجتها ووجعت لي هدايا بالمبرات عمت سليمان بصرف المسيات كيما تقود سمام للرسيات أدر إذا ازداد